Salut les amis des sportiviers de Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également des baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations. Box sénégalais fait folle maintenir qu'à 14 régions du Sénégal, Rukhurkhari, Gorgorkhari, Nilé de Diadjofel, Nilé également qui la l'hôpital et sécurité du février, Yann Messun Borom Fogsen Bok, Nilé Gam, Nilé Kikasoyi, Nilé Hamne aussi erreur judiciaire, Guinée l'Union de football et Fouyou, Messun Borom Guéderen Feu, Delawar Leitse Nilé Diabot, Nilé Doua Donas, Messun Borom Khalena Djenefida aussi, Tayé, Réunion en avance ensemble dans la magie de Barbe et les sportivi l'actualité. En contenu directeur actuel ñu fassel waxtaan hein, nga xam ne euh, donc avec ses 99 matchs mais aussi waxtaan nga la galère en bouquin on a même le qui dit Doudou dit donc Alpha Dionko mais aussi waxti Chris bi du côté donc des arbitres au niveau de la du championnat sénégalais mais avant également une di invité gars pour ba leen seetaan vidéo y a un petit babo Show c'est là aussi des petits xam qui dit dem Neymar aussi son retour du côté du FC Barcelone à aussi King Ramne de ne mooy donc annoncé sur le départ les premiers mën aussi qui Baba Show pendant ce temps aussi

je euh, Javi mu daal parce que y nañ da doon esprit et tout mais fi ne nii entre joueurs donc je ne am Neymar Dieu mais est-ce que financièrement ce sera possible loolu amit laaj la jëm ci ki nga xamné aussi moy Neymar mom ci bopam waxna ci li nga xamné moy donc ben joueur boo xam mom japp nañ dafa pour a jël ballon d'or bi waxul keneen ko dul ci rakam bi nga xam donc Vinicius Junior mu ne mom lern nañ né jamono ji ballon d'or bi moom moo ko muy Vinicius Junior donc gëj nañu gis brésilien bu jël gars li nga xamné ne donc ballon d'or si ma mémoire est bonne suma ma le dernier joueur à avoir remporté le ballon d'or chez les brésiliens do keneen ko dul Ronaldinho hmm, donc Ronaldinho moko ko doon jël parce que après Messi ak ki nga xam ne donc Cristiano Ronaldo ñoo ko doon tegle donc depuis Ronaldinho brésilien bu daal di jëlaat ballon d'or pendant ce temps kii moom bu moytu ko mere loolu muy kii nag di Frenkie de Jong nga xam ne nag dafa bëgg coupe coupe d'Europe bi mais également ni di waa Barça dañoo bëgg mu bañ donc jouer ko ménager parce que de mu gagnons après championnat de dafa reprendre mais moom mais mi ngi ci pendant ce temps aussi Kingsley Coman ou Bayern Munich nee ils sont ouverts à vendre leurs joueurs de 27 ans Barça aussi bëgg nañ ko parce que en Afrique il est intéressé par ce joueur même profil que nous Neymar ak ñoom ki am loolu Ousmane Dembélé la daal qui yor kii nag que Kevin De Bruyne moom nag ubbi na bunt pour daal di dem du côté de l'Arabie Saoudite nee na ci mu ne gars yi dafa si jamono joo xam ne dafa am njëkk xaalis dana am ñoo xam côté boo xam côté boo xam boo fa tollee xaalis ngay ngi yëpp bàyyiwul dara mën na toog comme mën na dem qui nag également di Xavi Simons le joueur du Paris Saint-Germain moom léegi ba léegi pas incité Paris Saint-Germain comme ko ah mais par exemple du ko jaay donc moom day jéem a xool ak Paris ndax duñ ko abalewaat mais là beaucoup de si Paris Saint-Germain loolu mais ba qui négocie ngi négocier lui indiqué également mi ngi waxtaan ak mom parmi les nga donc selon ESPN ah, les meilleurs gardiens de cette saison ni la ko tegee Alisson Emiliano Martinez Ederson Yohan Oblak euh, Ter Stegen Neuer Mike Maignan Yann Sommer Lucas euh, Adrian la John Gianluigi Donnarumma par rapport aux statistiques yi loolu la wax mais woon gisuma ci lu ne gisuma ci Courtois lu tax nag moo ngoog kii a di Kylian Mbappé moom daal fi mu ne nii dafa sànnee xeet yu bëri bëri bëri ki nga xam ne ma doon ko nasee tout le turam mi wax ko fi ne ni dañ Paris mais nee na daal bu Luis Enrique ak Luis Campos ñoom ñoo sauvé sinon dafa naroon toog wax mais saison vierge donc doon jouer dara dara dara donc loolu daal la daal di wax ki nga xam ne kii Mbappé nee na kontaan na ci li mu dem ci club de ses rêves Alpha Dionkou dans la galère Le xew mooy que le joueur passé par Barcelone ancien international sénégalais ba léegi international ça. mais gën nañ ko woo fi gars donc Grenada dafa waaj a résilier da bëgg a donc moom xam nañ koy able rek mais fi mu ne Grenada la dafa bëgg mu romp contrat am bàyyi ko mu donc loolu dina nekk lu métti si jour c'est un joueur très jeune et on l'espère pas lui c'est wax naa leen match contre Congo les joué centième pour l'instant 99 matchs il mu joué 65 victoires 21 matchs nuls 13 défaites de am 162 buts marqués 56 buts encaissés 200 102 joueurs.